kooru ren gi jar na seeta ségrégation bi moom maa koy bëgg a gëm bi may jógee dëkk ba mu wow koŋŋ koŋŋ ma ñëw fi fekk seen ñax mi tooy xib man nag daal lii moom bokk na ci li ma xalam moom eh, yaa salte tabon yëpp mbaam yi ni koy defee maqalla xamoo lii yow yaa ngi gis fii ñu fi féexloo nga ñëw def ko nii yow yaa réew yaa réew te baadoo la yow sa jëfi xaj ji des ko defe kilifa kilifa nga defee yëf ko jëfe xaj sa morom mooy fekk mu mu mu tëdd nga may rëkk waaye nag wolof nee na nit nit bu xamul la la ko aj la ko aj day yomb yow sa jëkkër laay xaar fi ba mu ñëw dina la wax man maay kan yow yaa xamadiku sa jëkkër de ba ma koy far ca ndëkk sa mu yurut lu may seenus càkkar ak sama dooram su ndaw soosu ma koy may sama doom ji ñaari salaamaaleykum nekkul ci moom waaye nag danaa la xamal lu tut te bëri te bu nga laaj ko sa jëkkër man maa ko dugal néegub góor maa ko yóbbu ñu xarfalal moo ko tëppit ma fayal ko junni ak ñaari eh, téeméer. même ba sama jàmm fii kuñ doom boo dee riitam la sante ma waaye nag. fii kuñ fi yóbbu néegu góor ak yóbbu woon nañ la néegu góor waaye moom maa ko yóbbu la. waaw ba fi yóbbu rek dañ kaa yóbbu. waaw man loolu safee wut. waaw kay ndax moom maa ko yóbbu. yow tey bu lay fii. Eh, ku bay bëgg a fekk ma sëgg fii di sël mu ñëw def ma jëfi xaj aw ka tar mel na maay moroomam. yow léegi lu tax ngay xët sama papa dafii fi fas ma xët ko yow sama papa ngay wax fas yow ah yow sama papa kaw man du ma seen morom xam du ma seen morom du ma seen morom du seen morom ba yaasin boole ko si ba yaasin ñoo ma boole ko si du ma seen morom du seen morom wax pour lan la ah moom kon moo mën a doob yow li ma la fi wan lépp nga ne doob nga ne ma la fi wan lépp woo leen yaasin ba mu ñëw ma boole ko si woo yaasin ba mu ñëw xaar xaar mu sang la xaara xam naa gën ngaa sangu xaara xaara rek xam naa gën ngaa sangu yow nga ne doo papa yow. woo sa papa woo Yacine. non yow rek leen ngay jënd jënd nii a ne bayu ndëpp yàlla ma fële puus ma fële fii laay toog di leen xaar fii laay toog di leen xaar kenn mënu fee am jàmm ci kër fii laay toog lu ngeen bax dinaa ko ngeen dem ñëw fekk ma